xibaar yi nga xamante nag moo nekk bu weerub octobre juróom fan ak ñetti atum 2020 yi nga xamante nag ñu ngi ko génne woon ci fukki fan wane ne nag juróom-ñaari nit am nañ jàngoro coronavirus bi di yokk lim bi depuis bu ñu amee jàngoro coronavirus bi ci réew mi ci ñetti junne juróom benn téeméer ñaar fukk ak juróom-ñett. xibaar yi nag wane na ne nag amut kenn ki nga xamante nag bakkanam des na si jàngoro coronavirus bi mu bàyyi lim bi ba léegi si téeméer ak fukk ak juróom-ñaar xibaar yi continué na di wane nag lu toll si juróom fukk ak benn nit ñoom si jamono ji am nañ seen wér-gu-yaram si jàngoro bi muy yokk lim bi si ñu am seen wér-gu-yaram depuis bu jàngoro coronavirus bi ñëwee si réew mi si ñaari junné juróomi téeméer ak ñeent fukka Banjul nag ba léegi ñoom ñoo gën a am ñi nga xamante ne am nañ jàngoro coronavirus bi ci réew mi ci jamono ji nag réew mi am ñu toll ci fukk ak ñaari nit ñi nga xamante ne ñu ngi leen ber benn place te lu toll ci juróom-ñeenti téeméer juróom-ñaar fukk ak benn nit ñoom ci jamono ji ñoo amee jàngoro bi